ànd ak suñuy camarade waa JDS woon àdduna ak Sénégal yëpp ni leen ànd nañu ak waa JDS pour ministre yi nga xam ni ay socialiste lañ nekk ci gouvernement bi ñu xam ni dañoo jëm ci élection présidentielle te bëgguñu nekk comptable ci bilan bi nga xam ni jëmalewul réew mi fenn tey Sénégal dañ coow yi ciy dégg daa bari bu teyee nga dégg coowal envol immobilier bu subaa nga dégg coowal Petro-Tim gannaaw suba nga dégg coowal Nafi Ngom Keïta parce que am na rapport yu mu def ci kudd ak feneen te ba tey kenn waxu ci dara mbaa sax ñu ko ci ay tiroir Sonko tamit dégg ngeen li mu wax boobu ba léegi ñu ngi koy di nga ko ak yeneen courant bi commencé ne du xuy xamaj ñu ngi naan ubbi tey jàng tey te école yaa ngi fees dell ak ñax ak i ndox euh, inondation yi commencé waat na usines yi ubbiwuñu xale yi liggéeyuñu problème yi bari na Sénégal te bëgguñu moment bi nga xam ne dañuy dem élection présidentielle war a indi bilan boo xam ne du bilan bu positif bëgguma comme ñun ñëpp bugguñu ñu tudd ci suñu parti socialiste ndax parti socialiste c'est un parti d'hommes intègres je rends hommage au secrétaire général du parti je rends hommage aux membres du bureau politique parce que tout le monde sait qu'on a d'excellents ministres dans le gouvernement ils abattent un excellent travail kenn du ni Serigne mbay liggéeyul kenn du ni Aminata Mbengue liggéeyul ndax ñooñu ci parti bu mag lañu jaar te ñooñu dañoo jaar ci loxo Abdou Diouf wante lu ñu liggéey liggéey équipe bu ci benn joueur bu baax nekkee liggéey équipe ba mën naa bañ a feeñ bëgguñu nag lu xajamal suñu yoon ci élection présidentielle yi en créant un parti on a un seul objectif c'est la conquête ou la reconquête du pouvoir un parti socialiste créé par Léopold Sédar Senghor ne peut pas être un parti souteneur. Raison pour la je rends hommage euh, à la jeunesse de Thiès. Thiès nag ku ko xam-xam ni ay bañkat a fi nekk moo tax bu ñu ma nee bañ moo leen bàyyi ci mbedd mi dugg leen ci salle je vous rends hommage Thiès maa ngi fàttali ko Thiès de 88 Thiès du lion Boubacar Sall Thiès dëkku bañkat la kon bokk yéen waa Thiès maa ngi leen di rendre hommage. JDS est un excellent mouvement JDS wutuñu xaalis wutuñu koppar wutuñu tàcc wutuñu lenn ñoom réew mi dox rek la bëgg kon waa JDS je vous rends ci seen courage ak ci seen fit Sénégal nag mënuñu fi xoqatal mouvement je rappelle que ay mouvement yàgg na parti socialiste ay COSAPAT ak COSREPAT ak ay OTD yàgg nañu fii mënuñoo ne ba tey naan mouvement yi fii ngeen di yem ak fii ngeen di dem OTD fu nekk la daan dugg. li ñuy bañal suñu parti rek mooy parti bi ñu soppali ko def ko OTM Ousmane travaille pour Macky kooku duñu ko nangu parti socialiste parti la boo xam ni mooy njëkk a juddu njëkk baax parti la boo xam ni père fondateur réew mi muy lamin Gueye di Mamadou Dia di ñoom Cissé Dia yëpp waa parti socialiste la ñu woon kon parti socialiste waru ñoo mujjee puso mu réer donc je demande au nom de la délégation bi nga xam ni moom laa bàyyi parce que bi may jógee Dakar des responsables de coordination et des maires de commune ma diisee que Babacar kat walu woon rëcc avant muy dem duñ ko waroon a ko ci péage bi ñun waa Dakar ñu njëkk a signé mais ce que je promets à Babacar boo ñëwee Dakar Médina ak la ko wër ak Ndakaaru gi yëpp dinañu ko làng signé pétition bi parce que pétition bi ku bëgg Sénégal bëgg parti socialiste tey war nga koo signé parce que ñàkk signé pétition bi mooy ëllëg ñu nangu ni bilan Macky Sall bii cee bokk te kan ministre bi ñu leen di fal tàgguwuñ ñu woon fale leen comité central fale wuñ leen bureau politique que Tanor lañ leen fale laaj ñu ci avis kenn kon boog lañ ci def na xam ne délégation Tanor ci gouvernement bi la parce que nag quota bi ñu joxoon Tanor mu tànn ay ministre ak député na leer du quota parti socialiste quota bennoo ak Tanor la woon moo tax Tanor tàgguwul parti bi kon boog bu ñu jël suñu turu parti di ko yóbbu ci bilan boo xam ni c'est un bilan qui n'est pas reluisant nous aimons notre parti. Nous demandons solennellement au nom de la JDS et au nom des républicains, au nom des Sénégalais qui aiment leur peuple, que le Parti socialiste, ses ministres, sortent de ce gouvernement qui tarde à régler les problèmes des Sénégalais. Nous avions de bons socialistes, nous avions des hommes d'État capables de redresser ce pays, capables d'apporter des solutions à ce pays. Te yaakaar naa ni j'invite cette jeunesse thiessoise parce que ci taabal ji ku mel ni pap Sall mii ak yeneen responsable yu ma xam Thiès tey ku leen jox ay ministères ñu doxal ko ils sont des hommes intègres ils sont compétents ils sont diplômés donc Babacar du courage Babacar bu ragal kenn mënu laa xoxotal Babacar nous sommes dans un pays de droit kenn mënu fee tiital kenn ku la dóor nga dóor ko ku la mbëkk nga mbëkk ko looloo fi des man nag duma fekke fu ñuy néewalee nit doole ñun ñoo nekk ci dëgg mënuñoo topp ci màgget yu am toll ci dernier virage bëgg hypothéquer avenir lu parti bi ñoo lànk duñu ko def Babacar nous sommes avec la jeunesse nous sommes avec vous nous sommes avec les véritables socialistes qui aspirent au retour du pouvoir du parti socialiste je vous remercie